li ñuy def fii mooy ndaje bu ñuy def at bu ne pour que li nga xam ne ministère de la santé dañ ñu ko sas muy lépp noo xam ne liggéey nañ ci at bi ñu daje chaque mois de mais wax leen ñun fi ñu ci toll fan ndax avancer nañu ndax dañoo reculer région Thiès nag. chaque année dañ doon avancé ren bi moom tam avancé nañ ci point yu bare bare parce que programme yëpp gis nañ ne am nañ avancement boo jëlee nutrition jël paludisme tuberculose ci de guérison bi mutuelle yi yëpp vraiment affaire ñaari problème la ñu am te yéen ñëpp yéen dimbali ngeen ben koy couvrir muy vaccination bi ak planification familiale bi parce que dafa nekk loo xam ne ci grève bi ñu dund ci 2019 ñun ñi dañ ko bloqué woon delloo euh, delloo euh, glacière yi bañatee euh, grève bañatee vacciné ba nga xam ne médecins yi seen bopp ak yeneen agent la ñu jël pour di leen vacciner loolu tax ñoo tax ñu am résultat yi c'est-à-dire que résultat yi wa yokkul mais pratiquement waaw wàccul wàcc ba vaccination moo xam naa wàcc boo xam ne mais yàlla daf ñuy dox jàmm ba jël jàll jàmm dellusiwaat ci secteur boobu mais bu ñu jógee ci loolu à part programme énergie vaccination ak programme planification familiale nga xam ne vraiment grève bi dafa impacté boobu yeneen yëpp am nañ ay résultats yoo xam ne dafa gën a yokk dafa gën a améliorer gis nga ni sibiré bi waa léegi wàññeeku na ci ci région de Thiès ah, tuberculose bi ni ñu koy fajee gën a gën a baax léegi nutrition madame xiibom bi gën wàññi nañ ko waaje ko baax baax baax Thiès MTN bi aussi maladie tropicale non négligée mooy feebar yoo xam ne doon day sew noon ñëpp déggandu ci mën dara am nañ ci def nañ ci ay jéego donc nga jël euh, paludisme programme yi daal dem nañ ci ay jéego mais programme élargi de vaccination la am problème lii nag ñu koy kon nee def ministère dañu ciy soññ parce que aussi euh, lépp loo xam ne parce que bu ñu fàtte ne partenaires yi dañuy dañuy dugal seen xaalis ci secteur bi état bi dugal xaalisam bu bëri secteur bi laaj na chaque année ñëw taxaw ne leen fii la ñu yem avancé nañu fii reculer nañu fii te fi nga xam ne dañu faa reculer ñu mën faa liggéey ba gën koo yokk déwén nga xam ne buñ ñu ko liggéeyee ñi dañuy wax ne avancé ngeen ci mooy la lu ñu naan lu ñu la jox xaalis war nga rendre compte redevabilité ak euh, rendre compte problème tuberculose mooy aspect communautaire li amoon parce que aussi grève bi def ca impacté ci cest à ci noom ci euh, détection bi ça aussi gis nañ ko bu baax ne feeñ na ñu ngi ci jël ay matukaay parce que seet lañ seet nañ bi ñooñu ñu jàppaloon yëpp ñu bëri bi liggéey bi commencé normalement janvier on a ñoo ñëpp ñu nga xam ne on les c'était des pertes de vie on les a retrouvés du ay pertes de vie sax mais retrouvé nañ les cas qu'on n'avait pas de qui n'avaient pas été déclarés parce que acteurs communautaires commencé seen liggéey infirmiers commencé nañ liggéey médecins aussi ñu def leen liggéey donc le cest à le système revenir na ci nam doon liggéey ñëpp liggéey bokk liggéey bi donc on am nañu ay résultats yu baax ci côté Euh, boo gisee même loolu bon peut-être euh, léegi ministre euh, agence couverture maladie universelle dañ ko yóbbu ci ministère développement communautaire parce que foogoon nañ ne peut-être nit kuy jaay nit kuy jaay warul joxe kiy jaay warul jënd donc léegi loolu danañ ko def dañ ko régler très rapidement parce que léegi ministère développement communautaire parce que bokk agence couverture ministère de la santé agence couverture maladie universelle parce que bokkatul ministère de la santé ci beneen ministère la ñooñu nañ ñëw ñu teg tous les dettes yëpp ci table bi ñu xool ko nag xool lan lan moo ci dette bu dëgg lan moo ci dul dette bu dëgg ñu def ko au clair et ñoom bés bu ñu kii rek dañ fay yëpp mais ils sont dans les dispositions payer toutes les euh, les dettes yi nga xam ne moom lañ yoreel état bi te foog naa dañ ko def. docteur résultat yi ñu waroon am demeewul noonu. Hmm? boo xoolee dafa mel ni grève yi dafa moo la nga xamante ni en fait yan jéego ngeen fas moo ngoog li ñu wax mooy sécuriser andi jàmm ci secteur bi rek boo jëlee région secteur yëpp. am nañu ay résultats yu baax yëpp kii on a deux volets yoo xam ne ñaari programme yoo xam ne ñoom ils ont subi la grève muy PEV bi ak planification familiale bi parce que dañoo diminuer parce que dañ c'est yoo xam ne leen bloqué woon ci grève bi koy subir mais boo jëlee paludisme nga jël sida VIH sida nga jël maladie tropicale non négligée nga jël maladie non transmissible ay jéego yu bëri lañ fi def yéen gis ngeen ko ci lima ma présenté donc danañ gëj yokk dialogue bi ci secteur bi fii nañ koy def syndicats yi pour que jàmm rek am secteur bi jàmm am fii bu jàmmee mais programme day euh, bu gërëw amul indicateur moom chaque année day yokku parce que aussi dañoo war a joxe résultats yi ñuy ñuy liggéey lépp lu ñuy liggéey dañ ko war a wone ndax résultat bu baax la wala bon mais buy gën a jàkk nag kenn bañ a grève xam ne day day grève bi du am benn impact ci résultats yi ñuy joxe. dal boobu ngay woote ci hôpital régional bu Thiès. hôpital Thiès nag foo na am directeur mu directeur mu ngi ciy def lu nekk man ma koy dimbale man mi médecin chef de région bi di rencontre mais je pense sous peu da ngeen da ngeen grève day day jeex. agent communautaire yi nag. agent communautaire yi nag mooy CDS yi CDS yi CDS yi xam nga ne comité santé comité yi santé bu njëkk comité de santé yi doonu doon dox ñi ñi def jàddo si bi ne doxatut parce que ñun ñi dañ doon répartir recette bi ci base yoo xam ne c'était pas des bases yu doon respecté taxi président de la république def beneen commité de développement sanitaire def décret présidentiel ak ay arrêté de mise de de de de mise en œuvre loolu nag ñun il faut ñu doxal ko parce que ay ay ay ay décret la il faut ñu doxal ko loolu effectivement da am na ñoo xam ne dañoo am ay salaires yoo xam ne aussi peut-être bañ ko doon joxe parce que li ma leen bëgg wax mooy. ci communauté de comité de développement sanitaire recettes yi nga xam ne moom la structure bi di générer vingt cinq pour cent yi waroo koo dépasser vingt cinq pour cent yi moo war dem pour fay personnel communautaire bi. ñoom ay volontaire lañu kon. normalement à la base c'était du bénévolat à la base parce que en plus la ñoom ñëpp parce que bu ñu wax communautaire c'était au niveau des cases de santé d'ailleurs et à la limite des de santé à le mettre c' boo xam ne du c' était même pas payant mais bi ñuy doom xam ne santé gën am te dans les années 90 ñu ne nañ leen jox 25 pour cent yooyu c' est en 92 pour motiver leen mais c' est pas un dû parce que xam ngeen ne à l' époque ñu ne nañ leen kii maintenant bu ñu bu ñu bi ñu bi ñu bi ñu quand on a réformé les CDS on rek moo fa nekk 25 pour cent ba léegi changé ko mais nag ñun bi ñu defee sur supervision on a vu am na ñoo xam ne ñoo jël 40 pour cent 50 pour mais aussi il ñu ne ñu commettre de l'ordre là-bas a pas problème. yooyu ñoo ngi sa ci ci fi ñuy defee analyse au niveau du. ils sont partout partout ils son partout dans dans tous les ils sont partout villages. pali bi ñan ñoo ko kii des doom yi la mais bu benn benn des doom mais liste des dispensateurs à soins à domicile ay motivation la ñuy jox kenn jox amul benn des doom bu ne dañ ko jox salaire amut. aussi il faut ñu revenir à l'autre chose li ñu doon def il faut ñu delluwaat ci ndax ñun ñoo bëgg a changer mais la doon def li ñu il faut ne sont pas des fonctionnaires ñu am ñoo xam ne parce qu'ils sont dans la communauté ils travaillent regardez xaalis bi ñu leen di jox c'est la cotisation des populations c'est-à-dire population yi ñëw ci structure de santé di fay loolu la ñuy daje ne lii nañ leen ko jox ndax neexal leen ko mais du salaire xam ngeen salaire. nous organisé ce matin sous la présidence du gouverneur de la région de madame le la région donc la la revue régionale des performances, de revue des performances sur le domaine donc au région de Thiès. Donc au cours de cette rencontre, nous avons analysé les indicateurs. Et ce que nous avons euh, noté, c'est que dans la plupart du temps, les indicateurs se sont améliorés. En tout cas, pour ce qui concerne la, la, nutrition, aussi sur le paludisme, la tuberculose, où les indicateurs se sont améliorés entre 2017 et 2018. Les seuls problème que nous avons eu, c'est au niveau euh, de la vaccination et de la planification, de la planification familiale. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette année, nous avons vécu une année difficile. Une année qui s'est euh, traduite par une grève de très longue durée, euh, qui a marqué les secteurs et qui a entraîné dans certains cas un blocage de certains programmes comme la vaccination et la planification familiale. Et que les indicateurs de ces programmes se sont vus diminué. Mais quand même, ils ne sont pas effondrés parce que nous avons maintenu les indicateurs à des niveaux raisonnables malgré la grève que nous avons notée. Mais ça ne nous dispense pas pour les autres programmes. Nous avons connu beaucoup d'améliorations. Et sur les autres programmes, nous devrons faire des affaires, bien sûr. que l'État met les partenaires également à, notre disposition des ressources. Et chaque année, nous devons nous réunir pour voir Euh, le niveau d'atteinte des indicateurs qu'on nous a assignés. Cette nous, avons, été heureux. Donc, cours d'indicateurs, on les a atteints, ou même dépassés. Et certains indicateurs, on les a pas atteints. On fera le, le bilan et on va essayer de s'améliorer. Et d'autres qui ne sont pas de notre volonté due à pas des mouvements de grève, on verra comment la prochaine fois pour que ces mouvements délétères de, de, ne, ne, pas venir gâcher le travail que nous faisons dans, la, dans le secteur, surtout le moment des grèves que nous avons cette année. La par rapport à cela, il a des efforts à faire. Bien sûr, en fait, pour, en ce qui concerne la tuberculose, le, le, mouvement de grève a impacté le taux de dépistage parce que vous savez très bien que le dépistage se, fait au niveau des, des, postes de santé. Et malheureusement, cette année, beaucoup de, Euh, d'infirmiers chefs de poste pendant la période de grève ont observé ce mode de grève. Ce qui fait qu'au lieu de 70%, nous avons un taux de 62% des cas de tuberculose qui

que, que, que celui qui paye soit en même temps celui qui contrôle. C'est pourquoi la couverture maladie universelle a été décentralisée, localisée au niveau du service de développement communautaire. Maintenant, avec le, ministère-là, nous ferons la situation. Et la couverture maladie universelle, parce qu'il y avait des problèmes dans le territoire national, maintenant tout reposé, parce qu'ils sont pris partie ministère la Santé. On va faire pouvoir mettre ta carte SISAB et le ministère du développement communautaire doit maintenant au ministère de la santé parce que c'est comme ça que le ministère de la santé donne l'offre et le service de, le ministère du développement communautaire achète maintenant euh, les services et, ils seront obligés aussi de voir ce que le ministère de la santé les dispositions pour que toutes les factures qui seront données par les prestataires du ministère de la santé euh, soit des factures qui ont été vérifiées et vérifiables. Alors pour les premiers pour le problème des CDS, vous avez bien fait de rappeler ça. Le ministère de la Santé a au cours de l'évolution de l'évaluation des communes de santé vu qu'il y avait des problèmes de niveau des communes de santé. C'est pourquoi le président de la République a a, a, a, a supprimé les comités de santé, les anciens et a mis en place les communautés de développement sanitaire dont la gestion doit être plus transparente, plus claire et associer tout le monde plus inclusif. les populations sont associées, les autres collectivités locales sont associées. Donc les problèmes que nous avons, ça dit que c'est tout simplement d'avoir mis en œuvre les directives provenant du décret présidentiel. Et ça, nous sommes obligés de mettre en œuvre. Bien sûr, il y aura des problèmes, mais également les textes sont mis en place pour être appliqués. Bien sûr, bon, parce qu'à un certain moment, les communautés de santé, certains comités de santé, pas, je ne dis pas tous, n'appliquaient pas les directives lié au, au, au, pourcentage, au pourcentage de répartition des recettes. Cette fois-ci, on a dit que les recettes qui doivent être destinées au, au niveau communautaire ne doivent pas dépasser plus de 25% de la, des, des, recettes, des recettes générées par, la, par les communes de santé. Donc bien sûr, quand on a fait des supervisions, on a vu qu'il y en a qui donnaient de recettes, ou 50% même, euh, et jusqu'à recettes qui est destinées à payer du personnel. Euh, et ça, on va, euh, ce qu'on va appliquer ce décret-là relatif au CDS. il y aura des, des, des, des, désagréments pour certains travailleurs, pour certains, mais, mais bien sûr, on est obligé. Docteur, ces travailleurs disent qu'ils font l'essentiel ah. euh, que pensez-vous par rapport à... Parce qu'arrêtez, on a dit que le comité, dès la base, le, un de santé au niveau des villages, on, vous ne savez pas que ce ne que des motivations. On ne peut pas au niveau des villages donner des salaires, ce n'est pas impossible, ce n'est pas possible. village il y même pas il y a c'est un travailleur quand vous le recrutez il faut le faire payer des prestations mais vous allez pour aider les populations c'est même l'argent des populations que les gens se distribuent en fait c'est les populations qui génèrent l'argent qui sont produits dans une case en poste de santé donc pour les gens qui viennent aider ce sont des acteurs communautaires on essaie de les motiver pour qu'ils puissent continuer ce travail là parce qu'à la base le système communautaire est Mais pour ne pas les décourager, on leur dit nous prenons 25% des recettes provenant de ces activités, nous vous le donnons pour vous appuyer. Mais c'est ça, mais ce n'est salaire. Il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas un salaire, c'est une motivation pour que l'action communautaire soit payée. Au débat, dans les années, dans, il y ne les paye pas. Maintenant, au, au, fur et on a répliqué dans les postes de santé, il y recettes, dans les cas, il y recettes. on intéresse ceux qui viennent appuyer l'infirmier sur le poste, la matronne et toute autre personne. C'est tout, c'est le problème communautaire. Docteur, aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure des grèves et des mouvements d'humeur hmm. qui sont la cause du, des problèmes, hmm. des résultats. la vaccination est... l'hôpital régional de hmm. Thiès, les, personnels, le personnel de l'hôpital est en mouvement depuis 30 jours. Aujourd'hui, qu'est-ce que Ben, nous sommes en train de faire tout ce qu'il a à notre pouvoir pour que cette situation cesse, rapidement. parce que le ministère de la Santé suit ce, ce, problème, et même de très près. Je pense que vous avez demandé au directeur qui vous a dit ce qu'il en pense, qui nous pensons que décision, décision administrative, euh, c'est une décision administrative, et les prise. Maintenant, il faut que les travailleurs avec qui nous avons discuté très longuement, je pense qu'ils vont revenir à très, sous très peu à une position raisonnable et de le monde, de bref pour qu'une solution, une, trouve une solution très rapidement et passer à autre chose.